Revue de presse. yéeglekaay yi Diop su mën di doon kàddoo ma ak fonkeel gi ci dénduka Afrique doon li nga xamante ne farata woon waaye tey jile nag loolee dafa bëgg naax saay doon sax lu ñu bëgg araamal bés bi le jour yi ni kaay ginnaaw njànget li seetlu gi ci biir askan wi aw xar wu yaatu wum ci daal di dëxëñ xëy rek daal di koy becc subaak tey gile ku ko jàng mën nga caa gis sa bopp yi ni kaay groupe Emedia Invest ne wallu ko kàddu fonkeel gi ak ni ñu ko bëgg faxasee ci suñu xar baax moom jaaxal nag lool ndax nag wax loo xamante ni du dañ ak nag fonk sa wàllu ko kàddu ba keroog ab bor la boo war a wàccook laajal Lat Joor kere bi nga xamante ne tëkk na bi ne dana dal ci kawam ba mu ci yeggee tamit amul leneen loo xamante ne defal na ko donte ne dooleem na waaye tamit bi nar naa diis ci moom lool ak lim bu néew ci ñi nga xamante ne la daal di ànd waaye tamit ci lu dul benn pa ngànnaay terewul ba mu jotee song na ki nga xamante ne moo di tubaab bi ndax nag bañoon na mu daal di doon koo xamante ne ni li du fonk mukk ak kaddoom Lat Joor kenn du moom yéenekaay gi di bés bi la journée ëttub politique bi moom kilifa googu fonk sa kàddu gisatul yéenekaay gi di bés la journée ankay dindi ko ba mu set wecc ginnaaw ki nga xamante moom moo di Nelson Mandela lu mu waxal mës na def keneen dong moo ko fi ñaareel barka Dembo Ndiaye te la tudd sant Sall doon njiitum réew gu Sénégal lépp lu mu waxoon ak askan wi ci ñetteelu mandaam wàcc nak moom warook lool ay njiitu réew yu bari ci dénduk Afrique lu ñu xëy wax bala ñu faa jógee wala balaa ngoon mën nañ caa dañ ba mu set wecc mel ni du ñoom teg seenaw lay te kenn du Sior jaaxal nag ak ay kàddoom yi muy saawanal saa su nekk jile nag daanaka mënees na koo jàppee koo xamante ni benn pa doom la waaye yor lu ma téeméeri xer kanam lu mu dugg rek mën na caa génn ak lu muy wax tey dana wurok lool ay kàddoom yi ci gannaaw ba ëllëg tamit fañ koy séentu day doon loo xamante ni le wax ju safaanoo lay doon yi ni kay groupe Futurs Médias gi ne njiitu Pastef biñ fi xamee woon ci xadar ak wexat fi mu toll ni ba mu saf sàpp loolee moo sababu mu daal di jëlëpp dogal ajandi lépp loo xamante ni moo di xew-xew bi doon jëmal wàllu ko investiture am doon sampam ngir rek mu daal di mën a yutu toogu pa ay jajjam moom njiitu Pastef Ousmane Sonko ndax it nag tey gile la sàkku ci mboolem am toppam fu ñu mën di nekk bu benn kubéeru cën des ku ko amul tamit na ko wati daf say kalang-kalang tànqal dëkk bi ba fa mu yem neex sañ-sañi ki man-man nañu moytu pexey buur yéen i kaay gi l'observateur ci la ñu xëy daal di ni moom moo di tëralin gi ci wàllu ko yoon nas ak ci lépp loo xamante moom moo di wàllu ko élection yi ni groupe Futurs Médias projet yoo xam ne càmbar nañu ko ba noppi tey jëlee kii di njiitum réew mi moom moo yore ca gël guyam saa bu ko soobee mën naa tas pencum ndawi réew mi te du ca laaj kenn yi ni kaay gi sori loolee ne ñaari kaay yi tamit nekkatul loo xamante ni ni le dañ leen di fàtte ndax firi nañ leen ba noppi xam nañu seenu ko ëllëg muy Khalifa ak Karim Wade seenu ko bokk leer na nañ ci élection présidentielle yi ngir rek ñu laaj toogu biti lañu ko teg ni dege ca la ñu ne gees dal ci source a yunikaay gi xëy tey mbir mu doy waar ak teer bi doon saxaar gu bakkane gi di bàggante ci diggante Dakar ak banlieue bi doon gox yi gën a ruxe yi mu dal di bot yunikaay gi ne defati na jee ñaareel bi yoon muy far bakkan démb ci ngoon moom moo ci dal di mujj ba kilifa yi jëlëp dogal dal di koy dakkandil ci ab diir ginnaaw rek ba mu dal di fiire ab waaye bu ñu ne toll na ci ñeen fukki at jamono jile yëf yëpp a nga ci loxol yoon ñeelup enquête fii ci ñoom del toppandi waa groupe Omedia Invest wàllu ko diine nag ñoom ñoo ci man àdduna bi ñoo leen ko seddal tax ñu takkal leen cëpp raaya tànn benn ci seen émission yi doon tafsir 2.0 jàpp na ci réewum Sénégal mbooleem émission yi ci wàllu diine yi moom lañ dàq déglu ndax it ñi koy def doon imam Biram ak oustaz Tayib Sosé lépp lu ñu wax ci téere borom bi subhaanahu wa taala kenn mënu koo waxun ci lay faye bor wala luy toji kaas di wane la journée ñaari kàngam yooyu la ci wàllu ko tafsir alxuraan réew mi bu weesoo weeru koor gi ak wàccaayu ko tabaski ki tam xarit gi al juma bu jot bu 14 heures weesoo ginnaaw julli ko juma gi foo dem i rajo la ñuy déglu ci taxi yi restaurant yi université yi école yi amul fenna fu ñu daal di bàyyi fépp la ñuy daal di maasale ngir seen xam-xam bu rafet lool ñi di ko séddoo ko askanu ko réewum Sénégal teg ko ci ak mandute gu mat sëkk tafsir 2.0 yi ni kay groupe Média Invest Guinée stage tey sosi ak imam Biram Pouy tey jëlee la leen réewum Sénégal di sargal xew ba di amee ci hôtel Pullman